dalli nag jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di laal dal dina jàmm question euh, nervi mel na ni jamono ji euh, patas bu tàng la ndaxte buñ xoolee ki nga xam te ne moo di Xaadim euh, Sàmb min invité woon tey ji gannaaw boo xam ne am nañ journaliste laajees na ko di jëm ci li nga xam te ne moo di coowal nervi moom nag nangu ci a tudd nangu tontu li nga xam te moo di question boobu ba mu demee ba sonal ko sax dañu ko lan mooy nervi mu ni ko kat euh, mooy ñi nga xam te ne dañoo yor ay ngànnaay ne ci dëkk bi di dóoree ay manifestants yi aju mu ni ko bu dee ngànnaay la rek moom mii ci euh, palaasam boobu am na ay ngànnaay yu bëree bëri yoo xam te ne ay jaaseeg yee ci aju euh, ak i yaat ak yooyu. Euh, moom euh, kii di xaarim sàmm nag buñ xoolaatee loolee nga xam ne moom la tontu day mel ni daal moom nanguwutul la tontu sax ci lu jëm ci li nga xam ne moo di wàllum euh, question yu jëm ci wàllum nervi yi moo tax ñu bëree bëri dañ ko ci doon tooñ ci naan lii nga xam ne moo di question pour lii di wàllum cour pénal international la day mel ni moo tax ba kenn ñimeetu la wax ci mbir yooyu waaye daal ba léegi ni xamee sagul la nga xam ne moo waral moom xaarim sàmm nangu ci àddu waaye daal la leer ba leen mooy moom Xaadim Samb àdduwal ci mbir moom na ci question boobu nga xam ne ko doon laaj.